entreprise am xaw ma la domestique kii pas un truc un nom compliqué. xam ne wax ko ma euh, boobu avant sama yaay man di juddu la fayoon. Domitexa waaw waaw mi ngoon Finlande. Sotexka la woon de après ñu tuddee ko. Domitexa mais quelle histoire. waaw kii mooy archive. kaay ma wax la lenn. waaw te te ba ñuy jël sotex ba jël di kokojoh ko jox waaw dañ ko joxaale woon assiette foncière boo xam ne hmm. ci la bokkoon waaw assiette foncière nga menn bulal bulal bulal mu si soti baa buntu fikin bii baa menn ñu fa lañ dëkk waaw si te boobu dafa un plan de industriel la man li may wax ni dama ko fekkee. ba ñuy mm. signé seen convention boobu Serigne Mboup mu ngi toog Ablaye Balde moo nekkoon ministre de l' industrie. Mm. si lañ ko ko joxe waale woon. Mm. waaye nag la mu waxoon ca boobu ba kenn gisu ko. ah ah fi ngay gisee. voilà ba yëf ya fay ba yëf la mu liggéey woon en terme de relance et de reprise de l' kenn gisu ko. loolay dëgg babay aussi beneen bi après léegi jox nañ la. defoo lu nga waxoon. ñu ñu ñu ñu ñu foncier bi téye nga ko def nga ci leneen. Euh, def nga ci leneen. mu daf mel ni Sonacos ba fi amoon ak Abbas Jaber bañ ko joxee. bañ ko joxee Sonacos. Hmm. Ah. tous les biens de Sonacos yu nekkoon en ville. mu mu mu jaadale ko koñ. mu mu jaadale ko koñ. ah lu mu ngi noonu mu ngi dara.

na ko def tey ñoom citation day ñëw. na bul xaar ba suba na ko def tey. complicité de diffamation. oui na neex ba pare beneen ba. mooy public mooy waa euh, public sa nga bokkaale xoolal mooy beneen ba tam fàtte nga ko usine oto ba. boobu nag. boobu tamit <laughs> usine bata usine bata ba tënkee. <coughs> së sëriñ ñun dañoo téye dossier en main nga xam ne nee naa yàgg naa xam ne wax Baba Tandian xam fu Baba Tandian nekk yàlla na ko yàlla may jàmm. Hmm. ñoom ñaar ñooy seul milliardaire au Sénégal boo xam ne boo leen onze heures onze heures cinq onze heures cinq ñu tontu la sëriñ jël téléphone woo la yàq la njaajaan waaye bii sañul yàq ndaxte xam na ne temps dama téye position de force laa téye te sama laam xam nga man baaxul man ko mëpp doole te mëpp la laam ah, waaw du la woo du la woo wuy ma ba pare mais mais mais yëg naa ay misilam waaye du agsi ndax mhm. xam na ni man man li ma sama sama rab yi muy bañ mooy ay sotu bàyyil bul def ma gën a xattar biku ndax man du ma journaliste révélation waaye nag boo ma poussé ah su ma duggee doog dugg te sëñ fi toll nii dafa soxla day neng-nengal ñii. non day jënd glace. day jënd conteneur glace jënd fii ko jënd ay fii jënd fi mu toll nii sëriñ moom xool fii mi ngi toog ci glace xam ne. conteneur glace ko ne man su ma duggee ci dara. su ma duggee ci dara au laa jëm. waaw mais eh, son porte parole est là aussi. quand mais mais xool porte parole pourtant que da nga ko defaa ma koy sëñ mu dalaa jëndee. ma a Abou Diallo ñu ne ko sëriñ mu dalaa jëndee. ay tiktokeur ay Azura Fall la la jëndee la war a ñëw si yow mu dem jox ko ñee xoolal léegi Bachir nekkul ñu ko jàppale. waaw mais xoolal ñu pare Serigne woo ko ci moom nii de guddi gi la moo woo ne ma madame man su ma ñëw di la jàppale rek maa war a jàppale guddi gi de. Hmm. dama madame man su ma lay jàppale rek maa war a jàppale ma ne ma duud lan laa def mu ne ma Serigne tey daf ma woo. na ma réew mi yëpp ñoo ko yónnee këppati ko say li nga wax yónnee ko ko. Mm. mu ne ma dama rus mu kii mu ne ma dama rus xaw lu may wax pour la première fois. Mm. je n'ai pas eu de mot. Mm. mu ne ma sëriñ na ma mais Aïssatou ma lan laa ko dama song te sama rakk la ah ba ah, may na ma ay millions wala ay milliards ba mu accouché nga maa njëkk a dem këram wis <laughs> doomam ñaanal ko <laughs> sëriñ loolu la may wax gue telah sering tahu sama ya sering deg-deg nyobain sama kan nyobain sama dom nyaran sama dong tahu sama ya Ikaw sama yaran man mooy transhumance bi nga def dama la ko baax léegi léegi waaw kii dama kii si ma dama boobu dama boo fexee bañ dàq ma sëñ ba ma dàqee li ma sëñ di jox mënoo ma ko jox nga bëgg ma yàqal ma père de famille ma ne waa duudu baal ma ñu xëy la lendemain dafa ma def kaf de ñu xëy la lendemain ñu toog fi Abu Jaal moo ko man may rafetal hmm. duudu takal fi daal ne bàyyi ma kay saraxu di bal baal ñoom ñëpp ñu dagg xoolal xam seen ni dafa am tiktoker mooy tiktoker paste fi ñu daggate loolu këppati ko naa Assib Diop supli. Supli dudu ko wala duudu ko wala ma nangu <laughs> xoolal Bachir ma nangu mais léegi tay duudu kon nañ def bala terre ñu def sun émission parce que mu ngi continuer à man cadavre ba man dee ba pare suur ma moo des je n'ai rien à perdre déglu ma fii Ivoirien yi nee nañ hmm. cabri mort n'a pas peur de couteau Hmm. mor la n'a pas peur de couteau j'ai pas peur de couteau ya. fi ñu toll nii man yàqantuma loolu ku ma kuma ma kuma ma ma ci waa léegi pare nga pare 20 minutes lay def léegi man bala basir di paré man ma dem <laughs> après nga dem inshallah adu du duudu léegi la du soyon professionnel ma du tok man porte parole Serigne bou fa ñuy fa ñuy fa ñuy attaqué Serigne Mboup. waaw loolu day loolu day dëgg la du ma ko def. waaw léegi léegi waaw non da nga may jox temps de parole. waaw jox naa temps de parole. Ah, ah, waaw kañ. Ah, waaw waaw kan mais mais quand même may jox temps de. ñu xaatam si émission bi surtout non man temps de parole da ma koy jox. waaw jox naa la temps de parole. Serigne Mboup. Hmm. capitaine d'industrie la champion la. sama mu neex la mu naqari la. si domaine am champion la si. dëgg la. dix huit candidats moo fi amoon dix huit candidats. waaw mais xam nga si dama moom candidat. Ah, non non dama.